bi di nuyu l'équipe technique di ñaan yàlla lu ñu waxtaanee rek nekk njëriñ ñeel sénégalais. Mhm. alors Cheikh bi tey waxtaan bi dañ koy dooree ak xibaar yi bitim réew wax ci li nga xamante ni moo di coup d'état bi am foofee ca mhm. euh, nga euh, li nga ni dal na ci kaw Ali Bongo 17 ans de règne ginnaaw ba euh, ba mu donnee ki nga xamante ni moom moo di way juróom di Oumar Bongo ci ci xalifa bi mu def ak 41 ans donc lu ni mel est-ce que xaaroon nañ ko bu ñu gisee ni lu mel am na juste après la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle foofee ca Gabon. waaw xam nga malheureusement Ali Bongo malchance moo ko dal man euh, li ko dal yi c'était prévisible et moom mënoon na ko éviter Ali Bongo yàlla def na nga nekk ci benn teraanga mooy sa papa da nga màgg fekk mu nekk président Gabon le tout puissant Omar Bongo nga màgg ci nguur ba jot nguur enrichiru yow ak sa famille comme pas possible. Hmm. yore ñaari mandat dem nga ba munatoo physiquement sa kàttan mayatu la ndax def na ñaari AVC benn bi sax demoon nañ ba ne dootul jugaat nga dem ba jugaat. di dox bi muy campagne dégg nañ ko. mu ne il est bien important. di di dox ak beeki mu gi muy dox ak kan mu gi mu commencé di tenir mais buy dox dangay gis ni il prend beaucoup temps sa askan bëggatuñ la du sa personne la ñu bañ mais réew mi moo doxul. ndax Gabon li mu am ci ressource naturelle rawatina pétrole Gabon sénégalais yi dañ fi daan émigré loolu nit ñi fàtte nañ ko. Mm. sénégalais dañ daan jóge fii di dem Gabon du wuti dara ndax réew mu amoon koom la dem ba réew mi tey dara doxatul. li mm. fa dëkk sax gisatuñ seen bopp. Mm. bu askan bi bëggee changement. depuis élection bi mu xëccoo woon ak gendarme bi Jean Ping. Laali waroon comprendre ni moom page am jot na mu tourner la page fexe génn bi mu xamee ni perte na yi mu génn. reconnaître ne perte na félicité adversaire am gis nga su ko defoon. Hmm. doon na mun a génn ci jàmm moom ak famem moom ak clan am teraanga gi mu doon xëccoo mu continuer di ko dundee mooy nu mu tudd alal bi ñu euh, détourné yi des décennies. Hmm. léegi tey nu mu mujjee perte na élection yi. Hmm. nanguwul ni reconnaître na ko armée bi nangu na pouvoir bi perte na. muccam fi mu toll nii dootul yomb. mucc famem dootul yomb. li taxoon muy ŋaw ci nguur gi maanaam muy agrippé wu ci pouvoir bi muy teraanga bi nga xam ni moom la nekkoon moom lañu ñu moom ak famem tey pert na ko. léegi tey perte na bii perte lees. su moytul mun nañ ko jàpp. su moytul mun nañ ko téye su moytul al nu mu tudd alal bi mu détourné woon. mun nañ ko récupérer tey nañ déjà doomam gis nañ ko ci. vidéo bi muy wax su moytul ay mbokkam. dara leen jàpp léegi tey. li nga doon siis mooy teraanga bi nga bëggoon continuer da ci dund tey perte nga lépp. Mhm. mais mais bu ñu taxawee ci ci ki nga xamante ni moom moo di le général Brice Oligui Nguema bi nga xamante ni euh, un de ses plus proches collaborateur la woon jege loolu li nga xamante ni moom moo di famille présidentielle bi mhm. te coup d'état bi ci moom la jugee gis nga aussi tamit li nga xamante ni wax nañ ni moom la ñuy toppee doomu ki nga xamante ni moom moo di Ali Bongo ci vidéo mu def aussi tamit euh, gis nga ko moom Ali muy woote. Euh, naan euh, na dëkk bi génn nañ ko jàppale bu kenn def tekk par rapport ak lu ne mais ñu gis tamit askan bu nga xamante ne dañoo bégloo ci li nga xamante ni moo di ko moo di moo di moo di li xew comme pour dire quoi xam nga pour dire que nos politiques ont échoué ci sous xam nga penn musiba weesuwul nekk président président ci pays démocratique wax ne dañ la élire démocratiquement ay militaire musiba bu toll ni coup d'état ñëw jëlee la fa askan bi di tàccu di jubilé loolu président bu ne war nga ko moytu soo demee ba yow bu ñu la renversé autant loo daan gis bu renversement régime démocratique amaan population bi ñooy génn manifester na bugguñu armée bi mais léegi ñooy tàccu armée bi kon est-ce que président yi du ñu xoolaat ñoom seen position ci seeni réew bëgg-bëgg seeni askan bu ñu demee ba askan bi préféré leen ak militaires yi loolu c'est dangereux. c'est un hmm. président ah, très dangereux. parce que nag léegi loolu moo commencé nekk tendance bi. parce que dañuy dem ba sentir ni régime militaire yi ci réew yooyu mais dafa dem ba gënal leen régime démocratique yi parce que démocratie ci tur la ñu nekk au pouvoir dañuy def lu leen neex duñu yor réew mi yorin gu rafet liberté yi dañ koy restreindre population bi du gis boppam ci réew mi dund gi cher te kenn du wax moo tax après bu leen régime militaire yi. renversé yi nga xam dañuy am ay ressources te askan bi duñ ci ci gis seen bopp. bu ñu gisee ni Gabon ak li mu am ci ressource. ba France bu ñu demee ba démocratie. ñu renversé ko. population bi di tàccu militaire yi. président yi war nañ xoolaat seen bopp. léegi nag Ali Bongo maanaam c'était de trop quoi. démb victoire bi mu déclaré. Euh, mooy guddoo bi débordé loo. ba pare gasal boppam kàmb def li nga xamante ni moom moo di couvre-feu. coupé internet coupé internet bi nga xam ne tey ci lay waxee. xam nga loolu karma la. waaw loolu tamit doy na waat. moom internet la coupé woon wax tey moom internet lay utiliser pour wax. gis nga hmm. moo tax àddina looy def rek. et c'est vrai la coupé ci internet. ci lay wax beneen bi seen doom yi. yor doom mu wu dans les affaires de l'État moo tax bu nguur gi wadde xoolal automatiquement doom la njëkk jàpp. maanaam ñoom dañuy exposer seen njaboot te nguur xolal benn éternelul penda bu ko élection jeexulut coup d'état jeexulu ko sa bakken jeex nga dee au pouvoir mu jeex mais benn nguur éternelul budul bu yàlla donc yow bi période bi nga yoree nguur gi xoolal ñu ngi koy gestionné ngir ëllëg sa njaboot duñ sonn mais est-ce que yeneen réew yi nekk jamono jëlee en Afrique euh, nekkuñu ci benn zone de turbulence bu ñu xoolee ni pratiquement fu mu nekk nii wàllum coup d'état moom mu ngi bëgg nekk une règle mhm. xam nga fi mu toll nii bu Gabon Gabon par aw ou B àll yi lay fini soit ñu jox la pouvoir ki ñu wax ni moo gagné woon wala armée bi créé non kooku koy gagné woon ndax moom aali nee moo gagné waaw mais nit ñi jàpp nañu aw Gabon ni moo gagné wala ñu créé benn euh, benn transition militaire un an deux ans après joxe la pouvoir wala ñu créé benn institution dénkuwul mais Ali moom pare na ci. léegi xam nga kan moo ci def pour yow euh, nu mu tudd famille Obiang. Mhm. Mhm. Guinée équatoriale moo ci topp parce que moom it même chose réew mi ay ressource naturelles yu dul jeex la askan bi gisu ci boppam famille présidentielle bi nekk ci benn luxe bu kenn xamul. ci jamono bi nga xamante ni ñi ngi ñi ngi jéem a lijjanti la xew sax maa ngi lire euh, ci benn site ñu naan euh, suñu suñu suñu suñu militaires yi aussi ñu ngi waaj pour dem euh, foofee ca Niger jaaree ko benn waaw man moom l'option diplomatique moo ma gënal ci Niger pour beaucoup de raisons. mais l'option diplomatique juragul dara bu ñu gisee. Ah, am na yeneen levier am na yeneen levier cest yi ñu seen seen demande yi ñu am yuñ ci wàññi. xam nga militaire yu jël pouvoir ngeen ñëw na leen baleen duñ ko bàyyi parce que Burkina bi nu leen ko defee bañ ko bàyyi kaso lañ mujjee loolu mooy danger bi mooy avec le colonel xawma général Diendéré bi mu defee putsch bi ñoom Macky Sall demoon def médiation bi mu bàyyee kaso la mujjee ñu koy àtte moo tax militaire yi dootuñ gaaw bàyyi noonu pouvoir foog ñu foog ñu sécuriser seen bopp redresser réew mi door a dem kenn doot ci jël ñu ne la bàyyil nga bàyyi loolu c'est fini donc ñoom nañ gën a waxtaan Niger dafa bëri réew yi fa bëggee intervenir dafa bëri communauté seen communauté yu nekk Niger loolu c'est dangereux bëri na sénégalais yi nekk Niger bëri na nigérian nigérian wu maanaam les habitants du Nigéria yu nekk Niger yu bëri boo xoolee précédent bi amoon ci Côte d'Ivoire bi Sénégal amee position par rapport ak l'affaire Gbagbo sénégalais yi ni ñu leen sonalee woon foofu. mais ni putsch yi tamit commencé di gagner du terrain fii ci yenn réew ci Afrique à travers ay coups d'État